Balla Babacar Diome waaw. Balla maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar Babacar. ba am nga jàmm alhamdulilah. mais tey man li ma remarqué mooy tey dama gis benn Balla Gaye boo xam ne ñëw nañ fi open press ba tay mais dañu gis Balla Gaye sol blouson sol ay tërënik mais tey dama gis Balla Gaye boo xam ne bi mu ñëwee blouson bi daf koo dindi dese débat dërëm sol benn kilot boo xam ne comme ku nekk sax biir këram mën naa ne du féex lu relax maanaam loo bëgg a wan sénégalais yi ci maanaam ci abima bi nga def tey. waaw liggéey la rek xam nga boo liggéey ba pare amatoo looy xalaat ay yéreeg wala ay silat maa ngi dem na dama jàpp na yére bu ma sol la rek mu jot ma ma ñëw à l'aise bëggal sama supporter def loo xamante ne bu bis baa incha allah yàlla na ma ci yàlla may ndam seen xel daal moo tax ma ñu def larax ñëw loolu kese la. loolu tax nga solo noonu. bi mooy adversaire bi nga ko seqal muy Tapha bëri nga daan bi ndax Balla bi mu ko jëlaatee Euh, lan moo ko motiver parce que dama gis ne seen ñaar seen diggante daa mel ni ku jégu métti da ci fi mu nekk nii mais dafa mel ni Balla suy bëri ak Tapha Tine ak ku mel ni moo Lo donte sa adversaire yëpp da nga ciy liggéey mais ñoom ñaar dafa mel ni da ngay gën a am motivation rawatina Tapha Tine bi lan moo tax motivation bi di métti sa diggante ak Tapha Tine waaw motivation mooy dama am combat ak moom ñëpp ne Tapha Tine moo moom ñëpp ne Tapha moo pour doole ñëpp ne lii du combat yombalal ko sax xam nga làmb dafa day waar ñu jox ko lépp comme luñ ko jox lépp man li ma war nag mooy ma liggéey ñëw taxaw bés baa lépp luñ ko jox moom da koy tegaat sama loxo incha allah. ko jox da koy tegaat moom lépp luñ ko jox. bu neexee yàlla dina ko tegaat sama loxo. maanaam ci temps bu yàlla nag moo xam. mais gëm naa ne incha allah le jour ji. waaw bés ba lépp lu ko Sénégalais yi jox ne moo ko moom. muy doole muy xeex. moom Tapha Tine da koy tegaat sama loxo. Balla buy bëri ay supporteurs bu si jëndee 10 000 ñu jënd bu dee 100 000 ñu jënd lu mu doon ñu jënd léegi supporteurs yooyu décidé ngir defaat loolu kon ñoom ban Balla Gaye la ñu war a gis dimanche incha allah la waaw xam nga ne aw ma seen saa yu ma xewlee nga gis ñu wane seen bopp saa yu ma xewlee ngeen gis lépp li nga xam lu supporteur mbër di laaj ak dañ ko def après rawatina ñu civilisé nag vraiment nekk ay jàmbaar nekk ay noobu bu ma xewlee ñëppay ñëw ñëppay ñëw

donc mu nekk ku ñu respecté mu nekk koo xamante ne quelqu'un boo xam ne ku gentil la xol bee rafet yéen rek la am ci man ma gis aussi tamit sortie avant combat bi donc vraiment ma gis ne nit ku baax la donc maa ngi koy maa ngi koy félicité maa ngi koy félicité encore une fois di ko wax euh, ndam li yàlla na ko jël encouragé booy bu mu doon bëri vraiment